auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ñu fas yéene tàmbali ñaareelu kaamil bi kaamil bi nag niñ ko waxe woon cant gi li nga xam ne moo ko waraloon ki nga xam te mooy Cheikh Ndiouga Cissé di suñu sëriñ dafa am lu mat fanweeri at di ko jàngale te yàlla tegut ñett boo xamante ne daara ji mës na fay benn yoon te toll na jamono yoo xamante ne takkagul sàbbagul kër di dem Kayaar di dem Ndakaaru di dem Peteñ fu nekk mu dem fa te teewul daara ji yàlla jox ko ci natt boo xamante ne mës na taxaw ba mat fanweeri at loolu ko suñu borom jagleel nag jagle bu rëy boobu moom moo waral. mu taxawal bisu alxuraan nekkoon ko sant yàlla ci lim ko defal ndax may na ko loo xamante daal réer na ci moom trop te xamul lu muy fayee sunu boroom mu nekkoon na na na def bisu alxuraan taxawal ko fii ci jaxaaw xamal nañu ne su ma fi nekkee su ma fi nekkul yëpp na ko saxal at mu jot ñu taxal bis boobu ba mu ko taxawee ba léegi nag yàlla def na at mu jot ñu def ko ba mu yemoo sax Covid bi. woote wu ñu ko daan wootee waaye toog nañ ci daara ji wàcce ay kaamil ngir màggal at moomu ba yàlla def kii fi des tey di Cheikh Bara Sy yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér jiite daara ji di jëwriñ ji wuti fi waajuram yàlla yàggal yàggal ko fi moom mu taxal ko saxal ko noonu ba tey fa ko bàyyam yem àggale woon yóbbu na ko fu ko gën a kawe yàlla na dajeek ngërëmu sunu borom kon bis bi nag sëñ bi tuddewu ko kenn ku dul arxuraan bisu arxuraan la ko tudde moo tax tamit ñu fas yéene tamit bu ñuy ñëwee tamit ubbee ko arxuraan leneen lu ci topp war cee topp kon ñu fas yéene jàng fi juróom-ñaari kaamil tàmbali ko fi jàng ko fi leneen lu ci war ñu def ko fi ñaan suñu borom nag liñ fi ñaan yëpp yàlla na ko yàlla la jottali cheikh ko si fa mu nekk ca barsàq moom nin ak cheikh màggat kanji sangam ba ak sëñ madd silla ak mboolem jullit moo xamante ak soxna Faatu Ndaw ak soxna na koy Cissé di ci fasaale suñu rakk ji nga xamante moo fi jóge bëgg Dembo Njaay di soxna Marème Sakho yàlla yàlla dool ko leer soxna Faatu Kan yàlla yàlla jot ko ci tool ñaan gi moom tamit ak Babacar Diop euh, Babacar Diop mi nga xamante ne tamit yàlla yàlla jot ko ci ñaan gi loolu daal moo doon li nga xamante ne ak mboolem jullit ak ki nga sëñ Ibrahima Ndiaye bokkoon Cheikh Ablaye Dieye xam ne Cheikh Ablaye Dieye amoon na bis bu mag bu mu daan taxawal fii ci diggu jaxaaw ndax Ibrahima Ndiaye moo doon taalibeem bu njëkk waaye ba Ibrahima Ndiaye làqoo muy taxawal bis boobu bi sëñ Ndiouga indee bisu alxuraan bi sëñ Ibrahima Ndiaye dafa woo taalibe yi mu nekkal fii ndongaam yi naan bi sëriñ Ndiouga bii attan na lu nekk bisu Ibrahima Ndiaye dugal naa ko ci biir sëriñ Ndiouga su jotee neen bokk ak sëriñ Ndiouga ñu def ko muy benn bis bu loolu lañ koy saxale ba su jooñaale tey looloo tax Ibrahima Ndiaye ñu ko ci fasaale yàlla doolu ko leer ak sëriñ ba Cheikh Abdoulaye Dieye ma ca barsaq yàlla doolu leen fañ nekk ak mboolem julli nag bàyyiwuñu kenn ndax Alxuraan moom ni ñu ko waxee rek wal mu'miniina wal mu'minaati la góorlu bi góor ak julli bu jigéen yëpp a ci biir kon ñi ngi fas yéene tàmbali ñeen ñaareelu ñeen ñaari kaamil yi fas yéene ubbi ko jàng ko incha allahu rabbi kon bisimilah auzu billahi min asheytan rajim bisimilahi rahman rahim alhamdulilah الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط مستقيم صراط أنعمت عليهم خير المخلوب عليه ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وتعقل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما أرسل يقول يلزم الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ولا آخر يريد إلى ربي ولا هم الفهم بسم الله misra sidin isa sada bismillahir rahmanir rahim surabin nas malikin nas ilahi nas min sallil waswasil khannas allazi waswisu nas min jinnati wan nas bismillahir rahmanir rahim sadaqal azim abalaqa rasuluna bil mursal karim wa nanu ala ma qala rabbuna mawlana min as-sa'idin ala mirna bil qur'anil karim wa anfa'na bil ayati wa zikril hakim واجعل حلنا وجدا يوم الدين ولا منفعنا ما أسرت فيه من الآيات وزكنا بما ضربت فيه من المسلات وكل تلاوة أنا سيارة إنك مجيب دعوات اللهم تقبل منا قبل القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تعريف أو تقديم أو تأخير أو سيادة أو نقصان أو تعويل إلى آخر ما أرسلته أو تاجر عند التلاوة أو كسل أو سيخ لسان وقف بخير وقف أو دخان بخير متقف أو إسهال بخير بيان فتؤمن على تمام والكمال والمعذب من كل أنعام وسقنا فضل من خير وما دين أقوام الأعلى والقلب واللسان وابلنا بالخير والسعادة والبسارة ولما ولا تختمنا بالسر والدلالة والطغيان ونبنا قبل المنايا منا من قبل الدت والكسل وعمنا من أساب قبل من سعد منكر وناكر من أكر جدان وبين عجنا يوم الباس وتلقى من النيران وإيمن كتابنا ويسر إصابنا وسق الميزان بالحسنات وصبر أقدامنا على صراط واسكنا وصل الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكرمنا بلقائك يا ربيان اللهم اجعل قرآن عظيم ربي قلوبنا وجل أنزلنا وذهب قلوبنا وخائرنا وسائقنا إلى جنة نعيم اللهم اجعل أنسنا في المقصد ومصائبنا في الوردة مصباحنا بالسلمة ودلنا في الهدف ومن في الفنة واسمنا به والسيق والأعوائي وكيد الأعداء يا رحمن يا عين اللهم اختم رسالته وجعلنا واقف رسالته أمارنا وقرن بالعافية قلوبنا وآسرنا واجعل إلى رحمتك مسيرنا ومعنا وتفسد على فيك على سنوبنا وامر علينا بستر يومنا على من يلتقى كسرنا وسكت بكسرنا واعتقادنا وعمل من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بل ما اقرنا ونر ما ترون نور سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولأرواح المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين اللهم اجعل سواء ما قرأناه وبركة ما أتانا من كتابك العشر عدية وعاشرة ورحمة متصلة منك إلى رؤيا عبدك ومن عبدك سرنج وسيس رحمة الله عليه وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة اللهم أرشد صواب سالك إليهم واجعل نور يسعى بين أيديهم اللهم أكرم به مقامهم ويسر به حسابهم وضيف به ثوابهم واجعل رأيك مختوم الصرابهم اللهم أنس وحدتهم وأرم خلوتهم وتجاوز عن فلك وجودك وكرمك يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم توفنا مسلمين اللهم بدلين ولا مخيرين ولا فاتن ولا مفتونين عائمين يا رب العالمين subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun wa salaamun wa salaamun ala al-mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin bokk jàng Faatiha te yéene ko yool beeg mboolem njabootam gépp alhamdulilah amiin juróom-ñaari kaamil bu jàng ak yéen ñi toll yëpp dana kaaraan doon ko sëriñ bi ak waajuram yu tedd yàq ak sëriñam yu tedd yàq mboolem fu mu bi ci kër gi sëñ Baara mi jiite liggéey bi yàlla kattanal ko ak sëñ Xaadim jëwriñam ji ak waajur yi ak mboolem waa daara ji yëpp ak fu waay mën a bàyyi ko bis bi yàlla doon sa faju ko aajo ci dara ji Sëriñ Tuubaa boo defee nag ginnaaw alxuraan ji noppi na ñu tàmbali jàng xasida yi ba ba ca kanam ñu door a dugg ci tari alxuraan yi nga xam ne moom la xale yi war tari oustaz Ibrahim ak waa daara ji yëpp danoon taxaw loolu incha allah moom miy jàngal xale yi ak sëñ Moustapha Konte Jowlin ak waa daara ji yëpp bu ko defee nag ginnaaw. sunu mbokk yi daa waa Touba Peku yi ñëw nañ si waa di di maa ngi woon daal ak xëy na daa yow xëy na ñu ah xëy na ñu ak ñoom ñu am nañu ay xabaar yoo xam ne ñu daal di la bàyyi ko waaye day ñu daal leen di wax ne yéen dañu teewaat bi yàlla na leen yàlla may te teew nañu fi daaw ñu koy ne yàlla ñu ko fekk disposition constitutionnelle de la de la pouvoir. Il est en personne service diable. Et vous le voir en envoyant en ministère à partir de mon conseil. Il y a le moyen de faire au pouvoir de l'histoire. On a le métal du tour, du tour, du tour, du tour, du tour, du tour, du tour, tëjee bis bi leen leen bisu alxuraan ak xasida te mën nañu fee def leneen lu ëpp loolu nga xam ne ñoo bàyyi ko tubaab yëpp muy kuréel nooru daal yi boo defee ñoo jege si daal di joxal seen barkeel ma bu nekkee rek mel ni kuréel bi tasu subaan ñu ngi nii ak kuréel ñu saawal xëy te ku ci nekk barkeelu rek ñu doxalee noonu incha allah.